mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen àndax ñun ci rajo Rewmi FM tey émission gox bi euh, war a fas yéene tey euh, dalal ki nga xam ni moom moo di Moussa Baldé xam-xamam màcc ci wàllum koom mu nekk itam acteur développement bokk itam membre euh, cellule communication bu Benno Bokk Yaakaar Alliance pour la République itam responsable la fa fële ca diwaanu ca région bu Kolda Moussa ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi ci Rewmi FM. Mba maa lay nuyu. di la sant ci invitation bi di nuyu auditeurs yi ñuy déglu réew mi FM yi mm-hmm. di nuyu ñëpp ñu liggéeyee ci kër gi mm-hmm. di nuyu it euh, kilifa kër gi mm-hmm. monsieur Mbagnick Diop. Mhm. chose. Mhm. alors tey euh, Moussa euh, gis nañu tey li nga xam ni moom moo jëm ci coronavirus bi euh, sàkk bu yàlla sàkk rek dix heures bu jotee dinañ def xayma bi xool ñi nga xam ni ñoom ñoo jëm ci bulletin d'information coronavirus bi waaye bu nu li nga xam ne moom moo jëm ci lim bi dafay gën di yokk waaye bu nu ko xoolee tey li nga xam ni moom moo jëm ci cas communautaire yi wàcc na tey treize dañ ci am alors tey ban jàngat ngay def ci li nga xam ne moom moo jëm ci coronavirus bi. jàngat bi ma ciy def mooy euh, euh, ñu ngi euh, def ay effort pour contenir mbas mi ci réew mi effort yooyu moo ñu jural benn tendance bu jéggi 60 pour cent boo xam ne c'est le nombre de guéris te loolu dafa am solo souvent nit ñi dañuy xool le nombre de personnes en traitement ou le nombre de personnes décédées ou autre man li may xool c'est le nombre de personnes guéries ñi wér ñi wér te loolu c'est très important loolu mooy wane ne xeex bi euh, ñi liggéeyee ci hôpitaux yi maanaam médecins yi waa ministère de la santé jën nañ ko tout à fait au sérieux <laughs> te cas communautaire yi ñu ngi wàcc donc euh, population yi également ñu ngi dégg consignes yi <laughs> di soli seeni masque di respecter gestes barrières yi loolu aussi dafa am important <laughs> importance bu bu am solo parce que population yi ci wàllum prévention ñoom am nañ ci rôle mhm. bu baax bu ñu war a joue euh, parce que sol masque aar sa bopp la mhm. donc aar ñeneen ñi aussi également mhm. euh, donc loolu dafa am solo maa ngi ñaaxaat nit ñi mhm. ñu sol seen masque euh, ci biti suñuy génn également ñu respecter distanciation sociale yi ñuy mhm. raxas seen loxo yi mhm. ak saabu mais Moussa gis nañ ni relâchement dañ ko nemmeeku ci côté askan wi ñu ci bari respecté tuñ li nga xam ne moom moo jëm ci geste barrière yi ngay wax léegi nii ba tax na est-ce que tey jotul ñu xoolaat ak ci période yi nga xam ne nag ci lañ nekk waaw euh, am na relâchement tuuti mais peut-être chaleur bi la mhm. parce que nawet bi bi mu duggee dafa ànd ak euh, tàngaay. Mhm. tàngaay bi nag euh, sol ci masque dafa xaw a métti. waaye xam naa ne nit ñi c'est pas que bugguñu sol. Mhm. mais euh, tàngaay bi bokk na ci li nga xam ne. andi na gàllankoor tuuti parce que da nga koy sol dox dox dox dox benn instant. Mhm. nga tàng ñax doo mënati nooyi bu baax. mais ñu ngi ñaaxaat aussi. euh, soo wàccee sa masque pendant un, un instant nga jël benn suuf mhm. d'air mhm. nga jël benn bool d'air mhm. nga toogaat takkaat sa masque euh, gën a euh, taxawaat ci ci ci prévention bi léegi nag li li waral ñu am euh, vraiment de très bons résultat dafa fekk ne njiitu réew mi président Macky Sall dafa jël les devants très tôt que bi mu yëgee ne affaire bi am na Chine Euh, mi-janvier la woo le ministre de la santé ne ko. Mhm. Euh, li ma njort ni baaxut. taxawaay waa taxawaay bi léegi nañu nañu préparé benn plan même su eggul Sénégal mais nga xam ne ñun préparé nañ mhm. euh, ci la ministre bi commencé ak service am di liggéey. Mhm. ñu xool ndax ni mas mi mel. bi ñu ñëwee ba janvier fin janvier. la OMS moom mooy saytu lépp luy. wérgu yaram wérgu yaram. ci àdduna bi. Euh, ñoo ne mbas mi commencé na law ci àdduna bi léegi nekk na pandémie de porté internationale mhm. euh, ñu am suñu premier cas au mois de mars le 2 mars bien sûr fekk na plan bi pare na mhm. le 2 mars boobu la président convoqué d'ailleurs euh, le conseil présidentiel mhm. ñu validé voilà ci mbas mi mu woo secteur yëpp woo assemblée yi assemblée nationale conseil économique au conseil woo également les Euh, les leader, forces de l'ordre les leaders d'opinion euh, woo les leaders d'opinion mhm. woo tous les sectoriels ministères yëpp leen ah lii nañu tënk xalaat ñu tënk ko mhm. après mu recevoir force vive yi mhm. ñooñu tamit joxe seen xalaat ñu tënk ko def ko plan mhm. de riposte plan de riposte boobu moo tax ñu am les très bons résultats d'ailleurs on a été cité en exemple à travers le monde Canada ñun ñëpp seeraan nañ ci internet bi ay vidéo yoo xam ne def nañ reportage ci Sénégal ak yeneen i réew yoo xam ne naw nañ vraiment Sénégal ni mu liggéeye d'ailleurs récemment ministre de la santé primé nañ ko comme l'un des meilleurs de santé en donc loolu dafa baax alors tey ñu jóge foofu euh, wax ci coronavirus xam nga dafa dañu nekk ci problème sanitaire nekk itam ci problème koom-koom alors njiitu réew mi ba mu génnee ne naam koom gi sooxe na nañ ubbi bu ñu ubbee nag ñu xool naka lañ mën a saytoo si suñu koom-koom yow sa xam-xam màcc na ci wàllum koom ana yan tànk wala yan fànn lañ war a jaar ngir yëkkatiwaat koom-koom bi nga xam ni dafa am lompoñ bu baax ginnaaw bu fi mbas mi duggee. waaw léegi balaa euh, ñuy ñuy wax ci nu ñuy defaraatee koom bi. Mhm. président bi bi mbas mi duggee. parce que dafa indi gàllankoor ci. Euh, ci secteurs yi. Mhm. président dafa jël dogal. ne euh, damay consacrer benn mille milliards. Mhm. benn budget bu mille milliards. ci euh, résilience def ko plan de résilience. mais balaa mu koy def il faut rappeler que état. Euh, budget am année la. Mhm. Euh, c' est annuel. Mhm. donc benn at lay durer te chaque année. Mhm. balaa ñuy voté pour année deux mille vingt bi deux mille dix neuf la ñuy voté donc bi ñuy defar bi ñuy defar budget deux mille vingt bi. Euh, ba di ko voté assemblée nationale voté ko au mois de décembre deux mille dix neuf. mbas mi dugguloon. bien moo tax euh, bi mbas mi duggee il fallait que ñu réagir rapidement. donc mu jël ay décret d' avance. defar benn budget bu 1000 milliards. Mhm. génnee ko ci 4000 milliards yi nga xam ne amoon nañ ko comme budget. Mhm. génnee ko ci ne lii danaa ko jagleel xeexu mbas mi. Mhm. donc mu nekk lu ama am solo. ndax loolu permettre na suñu koom baña a sooxee. Euh, mu ne damay def premier point. premier point bi mooy euh, renforcement du système de santé. mu jagleel ko 77 milliards 77 virgule 8 milliards. yoo xam ne def na ko ci. Euh, muy renforcer ambulance yi jënd ay garab euh, pour euh, faj gaay ay chloroquine ñoom seen mhm. mu jënd également muy fay médecin yi seen heure supplémentaire donc loolu yokkoon yëpp yokk na dépense mhm. muy jël en charge maladie ak confiné yi mhm. yooyu yëpp mu tënk ko def ko def ci soixante presque soixante dix huit milliards mooy soixante dix sept virgule huit milliards bien sûr mu ne également beneen point bu am am solo il faut renforcer la résilience des populations Euh, population yi puisque mbas mi. Mhm. indi na gàllankoor ci seen euh, liggéeyukaay. Mhm. dem ñu liggéey ñooñu il faut nga jàppale leen jox leen ndimbal. Mhm. mu jox leen façon ndimbal yu bëri. benn ndimbal mi mooy ceeb. dawlin ak macaroni yéex na de ak waaw euh, loolu danañ ci ñëwaat. muy après ceeb mi. dund gi mu ne naa leen naa fayal néew di doole yi courant. naa leen fayal également ndox. mu jël euh, yemul foofu mu ne émigré yi nga xam ne nekk nañ ci yenn réew yoo yoo xam ne mbas mi. Mhm. am na fa doole. te seen liggéey aussi. Mhm. Euh, demeewul noonu mu jagleel leen douze milliards. jàppale leen bu jàppale leen mooy loolu aussi mu nekk appui bu ama am solo. Mhm. donc loolu si c'est le deuxième point résilience des populations. troisième point bi mooy stabilité. macroéconomique, mmh. renforcer la résilience des entreprises et conserver les emplois okay. parce que entreprise yi yu bëri dañoo euh, bëggoon a tëj mhm. euh, surtout euh, ñi nekk dans le secteur hôtelier de la restauration ñoom dañoo tëj mhm. mu ne leen tëj ngeen waaye bu leen mettre seen employé au chômage mhm. léegi il faut conserver soixante dix pour cent du salaire maanaam soo doon fay nit ki cent mille gen wàll bi waaw genn soixante dix mille yi na ko fay trente mille yi nga bàyyoon même su dee liggéeyul donc man état dinaa la jagleel Euh, xaalis déjà doo euh, soo soo yoroon bor banque. Mhm. ñetti weer yi da koy toog doo fay man danaa ko jël garantie mu mhm. jël ko garantie mu jël mu def ci deux cent milliards. Mhm. mu def euh, mu wàññi impôt yi ne entreprise yi. yoral ngeen ma boru impôt. puisque amoo leen xaalis bi ngeen fayee ak mbas mi dugg na. baal naa leen ko. mu jël également beneen mesure ne ku bëgg financement. man état. dugal naa ci banque yi pour petite entreprise yi. Mhm. ak euh, entreprise euh, ak moyenne entreprise yi. Mhm. dugal naa cinquante milliards ci banque yi donc banque yi dana lañ lebal jusqu'à hauteur de cent milliards cent milliards yooyu taux préférentiel. Mhm. Euh, xam nga soo demee ci banque yi ay dix pour cent lañ lay lañ lay fayee ko. ci ci bor. état bi ne man trois virgule cinq pour cent laa koy def. donc mu nekk benn révolution bu ama am solo donc mhm. mbas mi opportunité la mhm. daanaka ci wàllum économie mhm. état bi saisir ko trois virgule cinq pour cent yooyu ñu teg ci ne huit ans ngay eh, bor bi di durer. te ci huit ans yooyu am nga différence de de deux ans maanaam dangay toog ñaari at doo fay donc maa ngi ñaan ba mhm. ñëpp ñu yor ay entreprise ñu dem euh, jël parce que boobu opportunité la mhm. su loolu loolu su leen rawee mhm. duñu amati feneen est-ce que du ndëgg sërëx itam euh, euh, dëgg ndëgg sërëx leen loo xam ne piège bu nekk ci biir noo amul piège amul piège parce que état li muy li muy xool mooy nan na entreprise yi dox su entreprise yi di dox moom dana fayeeku impôt te nit ñi population danañ ci gis seen bopp parce que danañ am salaire bien sûr donc loolu njariñu état la moo tax état di def effort yi beneen euh, euh, fànn bi mooy mu mu defaat benn vingt milliards ci banque yi mhm. mu ne euh, boobu tamit jur cent milliards boo xam ne banques yi war nañ ko mën a lebal les grandes entreprises mhm. pour au au même taux mhm. donc nga xam ne effort yooyu état def na ko mooy trois piliers yi quatrième pilier bi bu ama ama solo mooy mooy sécuriser les circuits d'approvisionnement circuit d'approvisionnement ci wàllum dund ceeb parce que ceeb bi am na benn partie bu ñu fiy béyee mais am na benn partie bu ñuy jëlee à l' à mm-hmm. l' étranger. ma joxe benn misaal. Mm-hmm. Russie bi mbas mi duggee. Mm-hmm. ñoom dañoo ñe euh, du ñu jaayaati blé. yeneen réew yi. blé bi dañ koy tëj pour ñoom seen. population voilà donc état du Sénégal. pour bañ a am hausse des prix prix yi yokku walla am euh, ceeb manqué mu ne damay jagleel. benn euh, soixante dix milliards boo xam ne. dama koy def ci wàllum. approvisionnement mhm. denrées de première nécessité mooy lépp luy ceeb ak ceeb ak diwlin nag voilà loolu loolu dama koy sécuriser moo tax mhm. Mhm. ceeb lu mu doon jaar avant avant mbas mi loolu lay jarbale ba ak euh, bu dee yokkul euh, voilà euh, non yokkuwut yokkuwut su wàññeekuwul yokkuwut léegi beneen beneen fànn bi mu ne pour ñu am courant pour ñu am wàllum hydrocarbure xam nga hydrocarbure yi dafa nekk benn secteur bu am solo. Mhm. parce que moo ñuy permettre ñu am courant mooy moo ñuy permettre ñu am ay essence pour oto yi daw ak affaire yooyu. Mhm. donc loolu aussi dama koy sécuriser. ok pour mu bañ manqué. Mhm. mu def ko beneen troisième point. boo xam ne également dafa am solo. mooy wàllu wérgu yaram. Euh, lépp luy médicament. médicament produit pharmaceutique. dama koy sécuriser pour approvisionnement parce que euh, dañoo gis ni àdduna bi. bi mbas mi lawee. dañoo toog ñenn ñi ñu ne du ma jaayaati garab yeneen réew garab yi dama koy conserver d'abord pour sama dëkk yi mhm. donc loolu gouvernement bi def ci négociation bu am solo ak yeneen réew yi pour ñu bañ a tëj aussi. Mhm. wàllum jaay euh, mhm. médicaments yi médicaments yi. Mhm. moo tax euh, ci ci. pharmacie yi d'approvisionnement voilà pharmacie yi continuer. di di fonctionner di jaay ay garab. même su dee am na yenn garab yoo xam ne. day am problème voilà day am problème. mais quand loolu retard la. ci ay commandes parce que normalement ñin ñoo xam ne. ñett ñett ñoo doon liggéey ñu ne mbas mi. ñett euh, duñ dajaloo. Mhm. léegi ñaar wala benn moo fay nekk. Mhm. donc liggéey boobu. day yéex yéex yi quoi voilà mais quand même mhm. état bi jël na mesure yooyu. loolu moo nekkoon. plan de résilience bi. économique et sociale te plan de résilience économique et sociale boobu. Euh, jàppal ma jàpp bi aussi. andi na près de vingt milliards. Okay. donc jàppal ma jàpp bi mooy sénégalais yi ñuy contribuer kii joxe na cent mille kii joxe mille francs kii joxe un milliard. Okay. loolu yëpp ñu dajale ko. mu mm. nekk benn vingt milliards. Mm-hmm. ñu yokk ko ci. Euh, ci enveloppe bi mu doon lépp mille milliards. Mm-hmm. donc loolu moo moo nekk li nga xam ne état bi mm-hmm. jagleel na ko. pour riposte Covid bi riposte bi. ok nag c'est état bi bu muy prévoir prévoirul juste pour trois mois. dafa prévoir pour at bi yëpp. parce que xamoon na ne. lii naam mënoon na ko wàññi mais mbas mi doo ko doo ko éradiquer noonu. moo taxoon ngay def voilà moo taxoon ñu jël mhm. mesure yooyu mhm. te euh, alhamdulilah mhm. léegi sénégalais yi nañ tijji nañ euh, te euh, nu ñu amee woon nu ñu tëjoo woon waaw nu ñu nu ñu tëjee woon la peur a disparu ci sa gis-gis alors dañuy xuus ci waxtaan bi gis nañ ni semaine bii ñu génn Euh, service su Mansour Faye wala moom sax ci boppam def na xayma ci dund gi nga xam ni gouvernement bu Sénégal moom la jagle woon askan wi def évaluer na mbir mi nee na lépp gongo mais buñ ko xoolee ci askan wi am na si ñoo bari ñoo xam ne ñoom ñaawlu nañ d'abord yéex bi am na si ñoo xam ne itam amunu yaa ngi dégg ca Mbàkke ay jigéen ñi nga xam ne ñu ngi jooy ay financement alors euh, naam baax na waaye sooxe na quand même bon du ma wax ne sooxe na parce que déjà moom def na euh, point de presse. Mhm. def compte rendu. ñu jël mbokk moom si ligne bi. salaamaaleykum. waaw ñu ngi fii sëñ bi tur bi ak fooy woowee. man maa ngi tudd Ibrahima Kaba maa ngi en direct ah. waaw maa ngi tudd Ibrahima mhm. euh, bu baax a baax seen euh, waxtaan bi. jërëjëf. maa ngi déglu sama naataango boobu mooy Moussa Balde. Mhm. il a la perfection. Mhm. mooy le plan de résilience. Mhm. le li mu wax vraiment. Mhm. je pense que ñun duñ ci wax dara. lenn lenn rek laa ci mën a wax mooy. mooy xam nga tey euh, la gestion de la Covid. au Sénégal. foog naa ne Afrique bokk nañ ci ñi gën a baaxee. tey dañuy dem xool tous les pays ñuy wax sax les pays les plus riches en Afrique. ci dañuy difficulté ñu ngi ay dem à travers le monde te on de la réflexion. mais Sénégal yàlla def na ni des nañu mhm. gis nañu ak def na tey surtout que sénégalais lambda. Mhm. ñu gis seen bopp. Mhm. bien que nag situation bi dafa sama nit yi mais au moins sénégalais yi dem nañ ba xam lan mooy mbas mi naka la ñu koy moytoo loolu dèjà moo ci amoon solo. da euh, euh, benn affaire bi ñu wax mën a wax ci mooy. xam nga tey dafa yoon en huit ans bu fekkente ne ñeneen ñi defoon nañu. tey on donc le le le, le camarade Moussa. koy mhm. maa ngi koy encouragé bu baax a baax. ok parce que de baax mhm. de défendre le président avec des arguments am a am am solo. Mhm. le plan de résilience je pense que il faut comprendre. boo ko dégluwoo rek. macha allah donc maa ngi koy nag chapeau. donc c'est un ami et frère. Ibrahima Kabas moo doon woote. donc ñu jàpp ne tey. on a un président qui se bat. on a un président qui se pour l'intérêt des Sénégalais. loolu jàpp naa ne tey. amul kenn xamul nataab leen jaajëf li ma jot a def sur tous les secteurs mhm. kenn président bu ñu ko mhm. mhm. li mu jot a def dëgg yàlla amul kenn ko def def Sénégal donc ñun daal vraiment dañuy continuer di ko di di combattre di remercier euh, seen seen seen bi rafet na. neex na. donc maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup merci beaucoup Ibrahima. jërëjëf merci jërëjëf ñu ngi woon ci benn ponk xayma def na xayma yow tey naka nga gisee li ni mel da jàpp ni lépp gongo séddale bi. Euh, séddale bi euh, am na. rëq-rëq mhm. yu ndaw mooy mhm. retard yi. Mhm. loolu aussi li ko li ko waral. maanaam ci procédure de passation yi. xam nga le ministre Mansour Faye a totalement transparent maanaam euh, yoon wi joxoon na ko yoon. joxoon na ko. mu ñëw ne Memba ñaata ceeb nga am ñaata dawlin nga am mu jox la marché bi. bien euh, nga dem mooy entente direct mhm. parce que loolu amoon na dérogation parce que situation d' urgence la ñu nekkee woon. Mhm. mais moom il a préféré. Mhm. lancé un appel d' offre donc loolu day day jël ay fan. ak ak procédure yi. te njiitu réew mi 15 jours rek la waxoon. voilà donc loolu ça a été. Euh, benn contrainte. Euh, loolu moo indi yenn jafe-jafe yi. moo tax euh, et puis am na ay entrepreneurs yoo xam ne dañoo soumissionné indi kayit yëpp. Mhm. ne am naa ceeb am naa kii am naa. dawlin finish voilà au finish amuñu. donc loolu aussi. Mhm. loolu du du photo ministre bi. Mhm. parce que ministre nekkul membre de la commission. Euh, des des marché moom moo koy installé joxe. donc ñoom euh, si wàllum papier dañ leen ne fournir papier yi nga wax ñu ne am nga. mais euh, da ngay gis ne am na ay entrepreneur yu ñoo xam ne <laughs> dañuy bëgg rek. Mhm. encaisser xaal bi après dem après dem. léegi itam loolu est-ce que jaadu na euh, oui même mais mhm. loolu. Mhm. ci entrepreneur bi la. parce que état moom li mu xam kayit la. yow soo demee ci banque nga ne am nga fa xaalis fekk banque bi si signal la am nga fa xaalis fekk amoo fa xaalis. Mhm. xam nga loolu man. Mhm. Euh, dama lay croire. Mhm. sur la base de la signature. bien sûr maintenant suñu demee ba ci biir rendre compte ne yow li nga def. jubadi la. donc donc da nga euh, jàpp entrepreneur yi ñoo lajj si biir moom waaw am na euh, boobu bokk na si. donc beneen bi mooy. ampleur kii bi da parce que ceeb bi ceeb bi dafa bari woon cent quarante mille tonnes nga war a ko yóbbu loolu Sénégal mosu ko def il fallait quatre mille rotations de camion quatre mille rotations de camion loolu dafa bëri loolu dafa bari. parce que est-ce ko doon defaat duñ xool nan lañ ko mën a defaatee. ba mu ko a mën a waaw xam nga déjà am na benn projet boo boo xam ne mooy le chemin le chemin de fer Dakar Bamako. président mu ngi ci mu ngi ciy liggéeyaat pour ñu amaat ko su ñu amoon chemin de fer. duñu doon am benn problème parce que da nga doon teg ceeb bi yëpp. Mhm. li waroon dem ay Casamance ko ba Tamba à part Tamba camion yi jël ko mais loolu. amuñu ko woon. Mhm. donc loolu nekkoon na donc il fallait que nga jël ay camions. Mhm. loolu aussi nekkoon na euh, benn gàllankoor. mais mhm. man li ma si jàpp mooy. Euh, moom 69 milliards lañ ko joxoon. bien te def na liggéey bi. ci ci soixante milliards. ñëpp gis ci seen bopp. Ah, donc donc économiser na. économiser na. huit milliards. Euh, ci ci xaalisu état mooy sa xaalis sama xaalis ak xaalisu askan wi. économiser na ci huit milliards. donc Mansour dañ ko war a sant. beneen bi. Mansour. Mhm. Euh, wax na wax na it am na ay réclamations. Mhm. am na ah, joxe na waaw waaw joxe na chiffre bi je mhm. pense vingt sept mille ménages yoo xam ne. amuñu dañoo joxe réclamation ne ñoom waroon nañu am te amuñu. service yi ñu ngi ñu ngi saytu. ndax pour xam ne loolu euh, ndax euh, dëgg la wala du dëgg. su dee dëgg la ñu jox leen. parce que président Macky Sall yéene la am ci population yi. yéene boobu mooy. mbas mi indi na gàllankoor buggul kenn xiif mhm. buggul kenn mar mhm. buggul kenn am jafe-jafe ci réew mi mhm. parce que moom lañ dënk askan wi moom lañ dënk réew mi moom lañ jiitu réew mi te président dafa bëgg askan wi dafa am yërmande ci askan wi parce que dafa xam askan wi moom ci askan wi la bokk bien sûr yow Kolda nga dëkk tey ba ñu waree yóbbu ndimbal gi Kolda ndax ñu ci bari jote nañ ci ndimbal gi Kolda waaw ñu bëri jot nañ ci ci ndimbal li mhm. et eh, vraiment ñu ngi ciy sant président Macky Sall parce déjà mhm. euh, ku xam nawet xam ne ay jafe-jafe yu rëy mhm. euh, la euh, béykat yi di jànkonte ci wàllum période de soudure période de soudure donc ñooñu suñu leen joxee ceeb non seulement da leen di dimbali ci ci mbas mi mais également ci wàllum soudure da leen di jàppale donc loolu nekk na lu ama am solo vraiment ñun waa Kolda aussi kontaan nañ ci loolu parce Euh, lu ngeen doon xaar la itam. voilà lu lu ñu doon mm-hmm. xaar. Mm-hmm. ci ci président Macky Sall. et président Macky Sall moom. Mm-hmm. fi nga koy xaar toujours foofu nga koy fekk. ok loolu mooy gis-gisu <laughs> ki nga xam ni moom moo di Moussa Baldé mbokk yi fàttali leen ni yéen a ngi ci émission gox bi ci rajo Rewmi FM 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628. 86 86 Moussa alors mbas mi ñëw na léegi nag njiitu réew mi woote euh, plan de relance ci wàllum koom-koom bi alors dama ciy jukki benn rek entreprise ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa mouvement des entreprises du Sénégal dirigé par le président Mbagnick Diop ñoom bind nañ seen i recommandation yóbbu ko ci ministre bi xool Sénégal yan fànn la war a mën a jaar ngir mu sukkali li nga xam ne nag moom moo jëm ci koom-koom bi yow sa xam-xam màcc na ci wàllum koom alors solution yi tey lan la Euh, loolu euh, maa ngi gërëm euh, président Mbagnick te loolu la ñuy xaar ci ñooma ah. déjà le ministre de l'économie mooy Amadou Hott mhm. il est ouvert mhm. pour déglu ñëpp mhm. patronat bi travailleurs yi syndicats yi ku nekk joxe xalaatam donc c'est à partir de là la ñuy consolider document bi yóbbu ko conseil présidentiel ci conseil présidentiel boobu danañu woo toutes les parties prenantes mooy ñoom président Mbagnick ak ñeneen ñi ñëpp ñu woo leen Euh, à la présidence. Mhm. ñu valider ensemble document bi. Mhm. mais euh, li ma ci yokk mooy. Mhm. que mbas mi jàngal nañu. Euh, ñaari mbir. mooy benn bi mooy dañoo war a am souveraineté sanitaire. souveraineté sanitaire mooy yow da nga war a am infrastructure sanitaire yu gën a baax ci àdduna. ci sa réew. pour su su suñ tëjee frontières yi. doo soxla dem faju bitim réew. donc loolu i faut nga am ko déjà euh, suñu tëjaatee euh, frontière yi. Mhm. ñenn ñu waroon euh, soo amoo soo amul fii. Mhm. li ngay fajoo xam nga amoo gàllankoor. bien sûr donc état bi. Mhm. xalaat ne loolu war nañ ko régler mooy souveraineté sanitaire priorité la. ci plan de relance bi. donc déjà am na benn hôpital bu 3000 lits. donc un hôpital de classe mondiale. bu ñu prévoir à Diamniadio. boo xam ne état bi mu ngi ciy liggéey pour mu pour mu pour ñu tabax ko. boobu 3000 lii. Mhm. beneen bi mooy nga renforcer système de santé bi. Mhm. en recrutant mhm. massivement des médecins. wax na ay recrutement mais. 500 médecins ak mille technicien de santé. donc loolu dafa am solo. parce que euh, médecins yi. souvent ci dëkk yu gën a sori. Mhm. foofu la ñuy gën a am problème euh, médecin ay infirmier ñoo fay gën a nekk te parfois soxla nañu ay médecin mhm. donc président su defee recrutement cinq cent médecins. Mhm. soo soo xaymaa commune Sénégal yi c' cinq cent cinquante deux communes cinq cent cinquante deux donc pratiquement commune bu nekk war na mën a am benn médecin. ci yoon ci yoon. te am na sax ay communes yoo xam ne soxlawuñu parce que mm-hmm. am nañ déjà suffisamment de médecins mooy commune chef lieu de département mm-hmm. commune chef lieu de région commune yi la koy yóbbu donc commune rurale yi mm-hmm. lay gën a recruter pour ñooñu ñu dem agent de santé yi dem donc loolu yëpp nekk na lu am solo beneen bi mooy euh, nga nga tabax ay entreprise yuy yuy yuy defar ay garab déjà am na Médis boo xam ne entreprise bu bu sooxe woon la. président joxe na ay instruction pour ñu defaraat. Mhm. Euh, entreprise boobu pour mu taxawaat euh, mën a liggéey. am na beneen entreprise boo xam ne installé wu na Sénégal buy mhm. fabri buy fabriqué. Mhm. Euh, ay soluté perfusion. bien sûr mooy bouteilles yu ñuy defaree perfusion. yooyu dañ ko doon importé. déjà boobu tabax nañ ko fii jam ñaajo boobu mu ngi liggéey. dafa am solo donc xeet yooyu yëpp la ñuy ci wàllum souveraineté. sanitaire pour Sénégal mën a am pap euh, paj mhm. benn système de santé bu am solo boo xam ne moom dina ko téel boppam mhm. ko téel boppam te mhm. population yi lu ñu soxla woon ci ci faj danañ ko mën a faju fii ci Sénégal te sous région bi également dinañ ci jëriñoo waaw danañ ci jëriñoo dañuy ñëw loolu euh, mu nekk benn bénéfice bu bu Sénégal euh, beneen bi mooy beneen bi mooy souveraineté alimentaire xam nga ñu ngi doon woote depuis président toog président dafa wax mbéy dafa am solo ci mhm. réew. te nee na fa la ko war a mën a jaarale ngir sukkandi koom bi. voilà mhm. euh, léegi loolu. Mhm. mu defoon benn euh, benn benn programme mu tuddee ko PRACAS. Euh, programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Bien sûr mu nekkoon le volet agricole du PSE PSE plan Sénégal émergent. léegi PRACAS boobu euh, am na ay résultats yu am solo déjà ci wàllum ceeb. dañoo ne woon dañuy atteindre autosuffisance en 2017. bon ñu am. amaguñ ko. ñu am ay gàllankoor. Mhm. danaa danaa ci ñëwaat. su tax gàllankoor bi mhm. lu tax gàllankoor bi mooy. Mhm. am na ay dëkk yoo xam ne déjà fàttewoon nañ bay ceeb. comme sama mbokk yi Sine Saalum. ñoom gerte. lañu lañ misé woon euh, lañu lañu lañu misé woon. parce que variété yu ñu doon bay ceeb foofu. puisque taw bi wàññeeku na. mënatuñu béy ceeb. léegi état bi dafa indi ay variétés yu bees. yu méngoo ak taw bi nu muy nu muy doxee léegi. variété yooyu ñu leen nii nii ngeen di béyee nii da ngeen di def engrais quatre cent kilogrammes wala lii mais hmm. puisque xamuñu woon hmm. donc da ngay béy fi euh, en respectant pas les recommandations hmm. léegi fi nga waroon am quatre tonnes nga am fa benn tonne léegi su dee la prévision de l'état mooy yow da nga war a am quatre tonnes soo amul quatre tonnes xam nga euh, niveau de production bi mu war a am du ko am donc loolu moo nekkoon benn gàllankoor beneen bi mooy ci wàllum opérateurs yi. yenn opérateurs yi danga leen di jox marché ña leen yóbbu leen euh, euh, jiw. Mhm. mu tardé. Mhm. ba nawet bi dem. Mhm. ñooñu ñu mën a béy. donc boobu aussi nekkoon na beneen. beneen contrainte. Euh, donc yeneen yi mooy services yi service yi amuñoon yenn moyens yi mais état bi mu ngi mu ngi renforcer mais quand jàpp ne avancé bu am solo parce que Sénégal produire na un million de tonnes. de riz paddy. donc un million de tonnes de riz paddy soo xaymaa ci riz la mooy ceeb. bu prêt à consommer bi bu ñuy toggee ceeb. Mhm. boobu sa ça dafay sept cent mille tonne ok donc parce que ratio bi mooy pour une tonne. Mhm. da ngay am zéro virgule sept ou zéro euh, virgule six. Mhm. Euh, de riz blanc. donc sur un million tu as au moins six cent mille tonnes ou sept cent mille tonnes. de riz blanc. Okay. donc riz boobu moom lañuy ñuy fekk ci supermarché yi. Mhm. léegi supermarché boo dem. Mhm. quand même di nga fa fekk di nga fa fekk ceeb. ok sénégalais. waaye mhm. ba tey des na rek. Euh, wa wa wa des na. parce que déjà il faut ay effort. mais ren. Euh, li ministère de l' agriculture pro mooy ñu atteindre un million cinq cent mille tonnes. te taw bi ni muy demee ni mhm. yaakaar nañ ngeen njort ni daf ko. waaw am nañ njort ne mhm. mën nañ ko atteindre. te président ci wàllum euh, programme agricole bi puisque quarante milliards la la ci doon joxe. Mhm. mu ne ci wàllu puisque mbas bi ñëw na indi na gàllankoor yeneen secteurs yi. ci agriculture la ju la ñuy gën a sukkandiku pour suñu koom euh, bañ a sooxe. yokk naa ci vingt milliards mu yokk ci vingt milliards. donc vraiment. loolu mu nekk lu am solo. Euh, beneen bi mooy. pomme de terre. Mhm. ak euh, soble. soble waay Sénégal. Mhm. ci wàllum soble da nga dañoo atteindre suffisance sur la production. Mhm. léegi li li tax mënuñu am. soble toute l'année léegi lu tax mu yokk léegi mu dem sac bi dix mille cinq cent lay jar léegi. waaw xam nga loolu c'est c'est de la spéculation. loolu c'est c'est au niveau des marchés. product euh, pas au niveau des producteurs jaaykat yi. ñoom su euh, su euh, fet jubsee jubsee toujours dañuy yokk seen prix yi dañuy fexe yokk mm. dañuy fexe comme transporteurs yi fi nga doon fay pour dem colda dix mille mm-hmm. ñu yokk fa ne la quinze mille parce que c'est une question d'offre et de demande mm-hmm. mais ci wàllum production mm-hmm. déjà couverture bi demande Sénégal couverture bi production nationale dañuy tëj suñu frontière huit mois huit mois yoo xam ne soble Sénégal la ñuy lekk donc li tax mënuñu am douze mois mooy déjà infrastructure de conservation yi Eh, matewul quoi matewul te ah, ah. état bi mu ngi ciy liggéey état bi mu ngi ciy liggéey def na ci waaw def na ci programme bu am solo xam nga nag mm-hmm. bon puisque suñu réew yi mm-hmm. aussi c'est des pays en développement xaalis bi bëriwul donc am nga ay secteurs yu bëri yoo xam ne dañoo prioritaire mm-hmm. donc fii da nga fii compal tuuti fii comp fii tuuti jox ñee ñee tuuti moo tax lépp looy def da nga ciy démarrer ndànk mais quand même sûrement euh, pomme bi aussi idem pomme de terre léegi neuf mois yoo xam ne pomme de terre Sénégal la ñuy lekk donc mm-hmm. trois mois kese la mm-hmm. te te ci wàllu woowu euh, bi bi président Macky Sall toogee dafa toog ñaari at ne ah mm-hmm. pomme dama bëgg benn ñu defar benn programme d'autosuffisance en pomme de terre danaa leen jox un milliard chaque année mu yokk ko après sax ngeen jëndi jiw pomme de euh, ci Europe ngeen àndi ko ñu mën ko béy moo tax ren Euh, on a eu près de cent cinquante mille tonnes. Mm -hmm. euh, de pommes de terre loolu loolu aussi bu nekk euh, lu am am solo donc souveraineté alimentaire bi souveraineté alimentaire bi. Mhm. loolu yëpp moo koy constituer mhm. du point de vue céréalier mhm. céréales yi mooy lépp luy graine. mooy riz mooy mille mooy maïs. Euh, horticulture aussi. mu nekk benn secteur bu dynamique. Mhm. parce que horticulture dafa bokk ci benn secteur bu ñuy gën a exporter. Mhm. ci kii mu ñuy ñuy jural xaalis. Mhm. mais est-ce que tey doxalinu tey jotul ñu euh, soppi mbay mi horticulture ñu gën ko yëkkati tey ñi nga xam ni moom moo jëm ci yeneen fànn yi ci yeneen région yi Kolda bi nga bokk jot na itam ñu am accompagnement ci horticulture bi itam. waaw loolu def naa ci plaidoyer nee naa ci Kolda. war nañ fa gën a mën a béy pomme de terre war nañ fa gën a mën a béy soble parce que man euh, maa ngi fàttaliku euh, bi ma gën a nekk tout tànk mhm. euh, dañ doon béy ay kabendu mhm. dañ doon béy soble mhm. dañ doon béy même même jeune village ay saare woña dañ doon béy soble mais puisque y a pas d'accompagnement soble bi dafa disparaître dañuy béy jaxatu et on m'a dit sama benn nijaay nee na ma balaa indépendance. Kolda defoon nañu fa benn programme di seetu ndax euh, suuf si attan na béy pomme de terre. Mhm. te ça c'était euh, bi bi ñu ko defee ñu gis ne suuf si dafa baax ci béy pomme de terre. te mhm. pomme de terre boo fa boo fa ji. Mhm. dana sax jox na pomme de terre bu baax. donc jàpp naa ne ministère de l'agriculture. war nañ def benn programme spécial. te foofu la dëkk. pour voilà le ministre Moussa Baldé qui est en train de faire un excellent travail. le professeur Moussa Baldé. maa ngi koy nuyu aussi donc. maa ngi koy invité aussi mu def euh, vraiment benn programme spécial. Mhm. moo xam naa ne président Macky Sall déjà euh, idée am mu ngi foofu parce que dem na fa en euh, tournée économique. Mhm. te gis na ne foofu am na potentiel. Mhm. moo tax mu mu mu defoon xaas bu bëri Sodagri Sodagri léegi. à Kolda soo demee vraiment c'est c'est une mine d'opportunité. am na ay béykat yoo xam ne léegi tabax nañu ay étage hmm. jënd ay oto hmm. ci béyum ceeb donc loolu président Macky Sall moo ko fa moo ko fa def donc ñu ngi koy sant tabax na fa ay tali hmm. aussi voilà donc vraiment xam naa ne xelam euh, ni mu nekkee ci région Sénégal yëpp mu ngi ci su ma dëkk Kolda Fuladu. ok euh, mbokk yi yéen a ngi ci émission gox bi fii si rajo Rewmi FM alors tradition boobu rek la ñuy may waxtaanee Kolda alors Kolda tey gis nañ ni euh, nawet bi baykat yi mel na ni ñu si bari dañ koy soxla ngir bu taw bi wàccee rek lu ñu mën a def seen gox ak goxaan yi mais est-ce que am na loo xam ne mun nañ ko xool saytu ko ñu làmb ko ni lii nga xam ni euh, am na fi njiitu réew mi moo ko def parce que gis gis nañ itam Kolda ak ay gox goxaanam am na yoo xam ne itam. jot nañ ñu defaraat ko. waaw léegi balaa balaa ma ciy ñëw am na benn troisième point boo xam ne ci ci wàllum euh, plan de relance bi. Mhm. mu amam solo mooy industrie. Mhm. ah jot nañu euh, yëkkati waaw jot nañu yëkkati suñu industrie. Mhm. Euh, loolu président aussi wax na ci. nee na euh, industrialisation dëkk bi parce que industrie moom mooy créer moom mooy gën a créer mhm. emploi moom mooy gën a créer valeur ajoutée. Mhm. donc loolu nekk na point bu ñuy saytu. bu ama am solo. Mhm. bu ñuy dugal ci plan de relance bi. donc plan de relance bi day nekk benn PSE. deux parce que PSE bi. Euh, dafa am benn programme d'action prioritaire. boo xam ne dañ ko defoon 2014 2018. bu jur 6,5 pour cent de la croissance. Ouais. Euh, léegi deux mille dix neuf deux mille vingt trois ñu njortoon ne dañuy am neuf pour cent. Mhm. ci croissance malheureusement mbas mi dugg. Mhm. léegi mbas mi li mu ñu jàngal moom la ñuy jël dugalaat ko ci PAP 2. ok ma def defaat ko xam naa day doon deux mille vingt mhm. deux mille vingt cinq. <laughs> wala deux mille vingt deux mille quatre. boo xam ne dañ koy euh, dañ ci def benn pàcc bu am solo ci wàllu industrie. te loolu. Euh, euh, liñ ci déjà liggéey bi commencé woon na parce que def nañu ay zone économique spécial mhm. comme bu Sandiara mhm. bu sànjara war na accueillir trente-trois entreprises industrie alimentaire déjà y a six euh, ñu ngi fa ñu ngi fa ministre de l'économie dem na fa visiter. Mhm. woo na secteur privé bi mais est-ce que tamit jotul tey ñu jàppale secteur privé bi boo amee secteur privé bu am doole yaakaar naa ne am na lépp loo xam ne da koy bëgg day day yomba am. oui loolu. moo tax président indi fi FONGIP. Mhm. moo tax président indi fi FONSIS. Mhm. moo tax président teg DER. Mhm. moo tax également mu ubbi banque. parce que bi muy bi muy nekk opposition dafa seetu ne. Euh, entreprise pour nga pour nga mën a jàppale ay champion Sénégal. di nga am jafe-jafe financement. parce que banque yi fi nekk yëpp. ay banque étrangère la ñoom ñu ñuy ñu ñuy financé d' abord. mooy seen. Euh, seen seen ressortissants yi. comme banque française yi ñoom mm-hmm. entreprise française yi la ñuy financé en premier. donc banque marocaine yi ak yeneen euh, balaa ñuy finance sénégalais yi. bien sûr donc état bi ne bon pour mu accompagner sama champion national. mu mu defoon ne damay yokk financement bi. donc mm. financement bi damay créer banque moo tax mu créer BNDE. Mm. banque nationale de développement économique. mu créer FONGIP. Mm-hmm. FONGIP mu mu mu gisoon ne. Mhm. entrepreneur yu bëri dañoo am problème. Mhm. garantie mu ne euh, danaa teg fii benn fonds de garantie boo xam ne. Mhm. Euh, da day wutu entrepreneur yi ci wàllum garantie. pour ñoo ñu mën a liggéey. donc loolu aussi. bokk na ci lii jox euh, suñu suñu secteur privé. doole. Euh, donc déjà cité naa ko ci ci kii yi euh, muy joxe mais am na également. Mhm. des des possibilités de prêt. ok parce que ci budget bi. waaw dans le cadre des comptes spéciaux du trésor mhm. am na le compte de prêt. et d'aval bi nga xam ne état bi day day dem lépp euh, euh, à l'étranger mm-hmm. ñëw ne maa ngi koy euh, lebal sa secteur bi mm-hmm. rétrocédé ko comme ni mu def ak Sénégal dem dikk Dakar dem dikk mm-hmm. mu jox leen benn prêt pour ñu mën a fonctionner donc loolu yëpp état bi mu ngi koy def vraiment Euh, c'est que dañoo nekk dans un pays en développement mmh. problème yi bëri xaalis bi néew donc soo nekkee dans cette situation la day metti mhm. euh, mais quand même président parce que tàmmoon na gérer réew mi mhm. te nekk na koo xam ne dafa bëgg réew mi xam réew mi mhm. euh, wër réew mi pendant deux ans donc donc xam na réalité réew mi xam na réalité mi mais lu tax kenn gënu koo xam réalité réew mi lu tax mu tax ba tey ne dañuy euh, doole li nga xam ni moo di jëm entreprise yi wax DER FONGIP tudd na leen mutualiser entreprise yooyu xanaa dafa dafa yaakaar ni ñun suñu koom bi dafa jeex wala ñooñu bu leen euh, rënkee ci benn euh, kuréel dinañ fa mën a récupérer koppar non xam nga déjà mutualisation bi dafa baax parce que am na ñu mel ni euh, sama mbokk jàllobe yi. Mhm. parfois euh, am na ay saay-saay quoi. Mhm. ñoo xam dañuy dem jëli financement DER. Mhm. jëli financement FONGIP jëli financement BND te du ñu fay. donc euh, soo soo defee mutualisation def benn fichier unique. ku am financement DER mënoo am financement FONGIP. mënatoo am financement ANPEJ. donc dañuy xam ne yow déjà état bi jàppale na la. su boobaa keneen la ñuy jox. mais loolu moo nekkoon problème bi. Mhm. Euh, moo tax mu laaj mutualisation ñu am mhm. benn unique. Mhm. des demandeurs. de financement et des demandeurs de emploi. Euh, des de la part de l' état. bon surtout loolu dangay ngay fekk koo xam ne am na cinq financement jël fi cinq millions jël fi kii au mu liggéey mu dem tabax. yow léegi danga jàpp ni dañu war euh, dooleel entreprise yooyu wala dañ leen war a benn lañ ko war a def. no euh, cest à dañ dañuy def benn guichet unique rek. benn guichet unique ku nekk euh, parce que ku nekk am na fu muy euh, secteur. Mhm. yoo xam ne moom recadrement la ñuy def. ñi ñooy def lii voilà ku nekk am na rôle. Mhm. précis. Mhm. léegi da dañ leen di defaral benn guichet unique rek. nga xam ne yow soo soo ñëwee FONGIP. waa DER xam nañ ne yow jaar nga FONGIP. Euh, kii su ñëwee ANPEJ. Mm-hmm. waa FONGIP dañuy xam ne yow jaar nga ANPEJ waa BND dañuy xam ne yow am nga fa financement. Mm-hmm. parce que loolu day permettre transparence day permettre également mu yaatu. Mm-hmm. du doon les mêmes personnes parce que lu ñu lu ñu saytu aussi am nañ ñu ñoo xam ne dañuy wër ci institution de financement rek di di collectionner ay financements. <laughs> Ah, est-ce que su kiwee après <laughs> après ñu dem gis benn <laughs> benn sëriñ saay waaw ñu ne defal ma benn benn xarfa fuuba. pour ñu bañ maa topp. donc yooyu yëpp euh, gàllankoor la ci wàllum ci wàllum état. moo tax mu wax mutualisation dafa baax. Euh, donc loolu loolu moo nekkoon ci wàllum Kolda. Kolda ñun li ñu gis si. Euh, nguuru Macky Sall mosuñ ko gis ci yeneen nguur. ba Kolda sosoo ba léegi ba Kolda sosoo ba léegi. Mhm. mooy maanaam. def na fa dix kilomètres de route. Euh, ville de Kolda. defal na Vélingara aussi dix kilomètres de route. Mhm. Vélingara ci biir mosul am tali. donc euh, tali dañ doon romb rek. Mhm. mooy mooy mooy nationale mu def fa tali. su wax naa sànq Sodagri bi mu demee visiter mu gis. investissement yu ñu fa defoon mais investissement yu yàqu yoo xam ne am na barrage am na bassin buy def quatre mille ectare mun mhm. nañ fa béy ceeb. Mhm. mu gis ne loolu yëpp c' est mu gis ne amul ay moissonneuse batteuse amul ay tracteur mu ne non mais. lii mu def relance bi. mu def relance bi. Mhm. à l' le ministre de l' agriculture moom moo nekkoon. di euh, DG. mu dugal fa xaalis bu mat léegi quatre mille hectares yëpp ñu ngi koy béy. te Sodaagri dafa nekk benn secteur bu dynamique là-bas à Kolda. mu ngi leen di jëriñ. waaw mu ngi leen di mu ngi mu ngi jëriñ bu baax. waa Kolda muy jëriñ bu baax waa waa Fuladu parce que dañuy am ceeb. te dañuy am xaalis. beneen bi mooy luuma jawbe luuma be dafa nekk luuma bu am solo ci Afrique de l'Ouest waxuma la sa Sénégal donc dafa nekk marché international waaye luuma bi dafa dafa fay tabax benn marché de bu bu mag mhm. mu def ci un milliard trois cent soo demee tey jawbe bâtiment yi taxaw na ay finition ñoo des na des na ba léegi ay waaw ay finition ñoo fa des. Mhm. et vraiment dafay permettre ñu organiser marché bi mu mhm. den benn marché bu gën a formel. Mhm. te xaalis ba fay dugg ñu gën a xam eh, ni muy duggee. ak bu am plus de njëriñ pour suñu euh, suñu réew. beneen bi mooy tali yi. Euh, tali yi. Vélingara Kolda. Mhm. dafa am euh, tali yi baaxul woon donc cent vingt kilomètres. Mhm. bu def defar na ko. Kolda ci biir mais gàllankoor la problème la itam. Euh, euh, non sa à dire entre les départements. déjà defar na fa tali. mais ci biir ruq-ruqaat yi laa wax. gox yi gën a sori. waaw déjà am na lu ñu fa war a mën a def tamit. oui oui des na des na mhm. xam nga du jeex puisque on est des pays en développement. du du jeex mais def na fa lu am solo def na fa ay pistes rurales. comme la piste Thiéty. Euh, Kolda. def na fa sama dëkk maam yi fële à Soukoto. donc tali bi facilité na parce que man su ma doon dem foofu. vraiment ay coono yu rëy laa laa doon daj donc defar na tali ba foofu. la boucle du Fladou prévoir na ko travaux yi commencé am na yenn gàllankoor yi mais dana. gàllankoor yi rek yu dul jeex yoo xam ne que soo amee déjà mbas mi mbas mi su ñëwee. xaalis bi nga doon jagle ay investissement. yëpp si loolu ngeen ko dugal da nga koy da jël yenn yenn. benn benn pàcc nga dugal ko ci ci ci wàllum wergu yaram. bien donc loolu aussi. Mhm. Euh, pas c' est pas condamnable. Mhm. mais dangay ngay reporter rek ne bon parce que travaux yi ne woon naa deux mille vingt deux lay jeex moo mhm. day day jeexi deux mille vingt mais mais déjà. na nit ñi am wergu yaram. donc loolu def na fa. te dugal la cent tracteurs. cent tracteurs dans la région de Kolda loolu mosul am cent tracteurs. moo tax léegi Kolda ci wàllum ceeb bokk na c'est la deuxième région. ci wàllum ceeb. ci wàllum gerte c'est la deuxième région. Mhm. donc avec le département de Médina Yoro Foulah mhm. donc loolu dafa euh, dafa dafa baax vraiment. Mhm. président moom ñu ngi koy sant. ñu ngi koy gërëm ñuy ñaan nag. mu yokk mu dolli parce que parce que lu bëri des na de. assainissement assainissement bi war na ko def. Euh, responsabilisation des couloirs aussi war na ko yokk. même su dee on a de grands responsables. Euh, dinañ ñëw si ñoo ñu sax ñenn ñi. voilà ñoo xam ne ils ont des responsabilités donc. mais xam nga aussi nit ki su la defalee danga koy sant mais après nga ñaan nga naan ko yokkal. ok léegi ñu wax ci marché bi jaww bee xëy na ni marché bu mag la ndax loolu tey buñ ko defaree mairie bi wala askanu Kolda wala région bi war nañ ci mën a gis tey seen bopp ci wàllum koom tabax ba marché bu mel noonu marché boo xam ne xam ne ni Guinée daf ñu wër Gambie daf ñu wër Guinée Bissau daf ñu wër tey buñ ñooñ ñëpp wéree tey li nga xam ne moo di marché bu mag boobu buñ ko defee mel na ni kon euh, est-ce que duñu wax tey euh, Kolda dina mën a suqaliku bu baax a baax ci wàllum koom. oui loolu loolu quand même suñ ko def suñ ko defaree ci région bi dana dana am solo parce que dana permettre à plus de. euh, plus de personnes mhm. ñu ñëw euh, ci euh, ci marché bi mhm. parce que quand c'est formel mhm. Euh, parce que am dafa am problème de conservation amul woon ay ay hangar léegi am na ay hangar donc soo indee sa marchandise danga koy mën a conserver pendant une semaine deux semaines donc loolu dafa am solo donc Guinée dañuy ñëw Sierra woon yéen yi dañuy ñëw parce que parce que nit ñi dañuy jógee ba Sierra Leone ñëw euh, dañuy jógee Mali dañuy jógee Founé Mauritanie di ñëw donc loolu dafay am solo surtout di dëkk bi euh, Diawbe Kabendou mm-hmm. donc sama sama soxna fa la dëkk donc euh, <laughs> ma koy nuyu euh, vraiment mm-hmm. loolu aussi président bi mu fa jaaree sax ci ci campagne bi moom jëloon na parole ne ko président ñu ñu lay sant ci marché bi mm-hmm. gis nañ ne fàttewoo Diawbe ci sa ci sa peel waa ci sa politique alors tey gis nañ ni li nga xam ne moom moo jëm ci Kolda yaa ngi koy junj léegi mais euh, Moussa tey am ngeen ay responsable yu mag ca Kolda ndax plaidoirie yi ni mu waree ñoom ñu ngi koy def ci seen euh, région bi mën nañ ci citer Mame Boye Diao directeur domaine ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Bibi wala DG la ak ñeneen responsable yu ñuy fa ndax tey plaidoirie yi Kolda ñu ngi koy yeggee. waaw jàpp naa ne ñu ngi koy yeggee bon c'est y a professeur Moussa Baldé y a Abdoulaye Bibi Baldé DG qui était ancien ministre y Mame Boye Diao DG euh, directeur des domaine mhm. pardon y a Aliou Sow mhm. qui est DG de la SAPCO mhm. amoon nañ fa Sanusi Diakhaté mais député yi également donc ñu ngi ñu ngi def seen liggéey quand même parce que man xam naa xam naa leen maa ngi liggéey ak ñoom donc ñoom ñu ngi porté ñu ngi porté plaidoyer bi au niveau des autorités. Mhm. Euh, maintenant euh, dama leen di ñaaxaar rek. Mhm. ñu gën a góorgóorlu. Mhm. ñu gën a porter waat bi parce que euh, fas ñu nee nañ fas li muy daw daw. dañ koy làbbali voilà donc loolu aussi. Euh, baax na mais ñu ngi def liggéey bu am bu ama am solo. Mhm. au niveau national comme au niveau de la base déjà ci wàllu recrutement ñu ngi. ndaw ñi voilà ñu ngi ñu ngi jàppale ndaw ñi. Mhm. bu baax. Mhm. Euh, assemblée nationale également député yi. léegi avant ñun dañ doon tooñ ñaan député dañ suñ demee dañuy nelaw. donc dañ ko daan toobe. maintenant ba daanaaki euh, léegi nelawatuñu. ñu ngi vraiment ñu ngi def lu leen war di bi di xool ñu ngi jël ñu ngi ah. ñu ngi jël parole parce que. li ñu doon gën a ñaawlu mhm. mooy député boo xam ne da ngay ñëw toog assemblée mhm. te doo jël parole te nga war a wax mhm. itey askan wi te Kolda ite tey bëri na euh, voilà te tey yi bëri bëri na te ñoom ñu ngi koy wax donc vraiment aussi ñu ngi leen di encourager ñu leen ñu continuer dans ça euh, c'est la même chose également pour les pour pour le grands responsables mooy professeur Moussa Baldé boo xam ne également mu ngi def liggéey bu baax au niveau de du ministère de l'agriculture déjà li wàll euh, mise en place semence yi jeex na mm-hmm. donc euh, loolu duñ fa am retard mm-hmm. sànq maa leen wax opérateur yi am na trente trois opérateurs yoo xam ne respecté wuñu mhm. euh, seen euh, cahier de charge yi mhm. mu mu jël kii jël responsabilité mu Ablaye Balde aussi bii bi mu ngi def liggéey mhm. bu baax au niveau de de la poste comme Aliou au niveau de la SAPCO parce que moom moom moo yor aménagement touristique te am na projet bu am am solo bu mu bu muy piloté au niveau de la point Sarène donc Pointe Sarène boobu su jeexee day nekk des up, milliers up, voilà up, des milliers d'emplois pour les jeunes du Sénégal mm -hmm. pas Fuladu seulement mais jeunes du Sénégal parce que Pod Sarène fii la nekk à Mbour si je ne me donc euh, Mame Boye aussi au niveau des domaines mu ngi def au niveau du parti mu ngi def. Mhm. comme euh, ñeneen ñi. donc mhm. vraiment. Mhm. ñu ngi encourager tous les responsables. Ah, ah, à se battre. au côté du président Macky Sall. vraiment ñu jàppale président Macky Sall parce que président dafa baax. te dafa am itte. ok temps bi presque lu si des bareetul mais junj rek tuuti ci aspect politique cool yi bari na trop seen parti am indi jàppal Orix ak leneen ak yeneen bari na trop <laughs> alors lan la ndax président dafa perdre contrôle parti président mësul perdre contrôle parti mhm. président ku ko xam xam na ne président ku am fulla la mhm. donc euh, mais nit ñi ñoom ñooy fàtte euh, seen i euh, priorité seen i mhm. parce que responsable suñ la joxee nga liggéeyal askan wi danga war a concentré wu ci liggéey askan wi waroo concentré wala waroo divertir parce que man dama jàpp ne yenn yi la donc divertissement yooyu askan wi duñ ko baal parce que da ngay da ngay euh, jox une mauvaise image au régime mel ni régime bi yëpp noonu la ñuy xalaatee mhm. te man dama koy wax président Macky Sall nekk na fi DG mhm. nekk na fi ministre mhm. nekk na premier ministre nekk na président de l'Assemblée nationale mais kenn déggu ko ci ay coow euh, ay euh, rabu àll ak yeneen yi dafa nekkoon di liggéey moo tax sénégalais yi ràññee ko jox ko réew mi ne kii daal suñ ko joxee réew mi dana liggéey te mu euh, mu ngi ci. Mhm. moo tax deux mille dix neuf gi. Mhm. ñu joxaat ko réew bi à cinquante pour cent jeunes yi ak femmes yi mobilisé wu fu ne. Mhm. nekkoo yow la ñu tànn te yow la ñu wóolu. dañ lay dënkaat réew mi nga doxal. te mu ngi koy def. donc man responsable politique yi dama leen di ñaaxaat. ñu nekkaat autour du président ñu xool président moom ni mu mel c'est un président sobre. un président travailleur un président discret bariwul wax. efficace donc soo soo nekkee au côté de quelqu'un comme ça yow da ngay wàññi sa wax mhm. nga wàññi sa liggéey eh, nga yokk sa liggéey pardon mhm. nga wàññi sa wax mhm. yokk sa liggéey eh, également nga bàyyi yenn ay ay détails yu ndaw yi ah, parce que loolu ça n'encourage pas amul sens quoi voilà xaalis bi ñu yàq ci ay ci ci yenn yi mën nañ ko jox askan wi. ok voilà voilà tey loolu ngay plaidoyer boobu ngay def quoi. voilà plaidoyer ah, boobu moom laa gis nañu itam euh, ñu jël mbokk boobu ñu ñëw si dernière question bi salaamaaleykum. asalaamaaleykum allo dafa mel ni rëcc na alors tey yow. allo salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar tur bi. waaw man la Moustapha Ngom mustafaa Ngom. bisimilah. waaw ñu ngi ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar. di sant suñu camarade boobu ñu invité foofu muy Moussa Baldé. Mhm. allo allo ñu ngi lay dégg bu baax. oui oui oui un mhm. da ngay xam ne vraiment kii li ñuy wax xam na ko te maîtriser na ko. mais juste li mu wax yëpp dégg nañ ko. Mhm. tout ce que président a fait jusqu'ici. parce que bari lu muy wax sax léegi naan jaww Kolda président def na fa loo xam ne benn régime mosu ko fa def mm-hmm. mais loolu du mën du ñoom sax jaww bee Kolda rek mm-hmm. mais dañuy wax Sénégal yëpp mm-hmm. ce que le président Macky Sall a fait ci Sénégal kenn mosu sa gis-gis yow loolu moom weddi gis bokku ci bari na yum lim yoo xam ne sax duñ fi nekk di ci jaaraat ndax day guddeel xanaa kay di waxaat ci point bi ngeen toll ne euh, li ci des mooy fi nga ko laaj léegi nii par rapport ak coow lu bëri ci parti beeg yooyu foofu nag day def question de lutte mm-hmm. parce que bu fekkente ni président amul tey benn responsable bu fi nekk boo xamante ni mm-hmm. li nga am quatre-vingt pour cent yi moom moo ko def mm-hmm. maanaam ci ci ci ci lu mu mënti doon nga nominé la nga nekk ministre nga nekk lii nga nekk lii nga nekk lii donc c'est pas quelqu'un boo xamante ni liggéey lu bëri pour parten ak ñi mu àndal donte ne sax nit ñi jàppal nañ ko mais bu ñu fàttalikoo ci jaar-jaaram comme ni ko Moussa waxee léegi nii président jaar na fi nekk na fi lu ne ci réew mi te kenn mosu ko dégg ci yenn coow yi hmm. kon tey buñ demee ba tey ànd ak moom seconde ba jël pouvoir ren nit ñu gorewaat te rendre ko la pièce de la monnaie hmm. parce que lu fi waaye di bàkkoo tey ji rek moom la man damay faral di wax naan moom mooy seule constance lu ci def ñëpp ay variable lañ hmm. kon nag tous les militants dañu war a xam loolu ñu liggéey bi jàppale ko pour que li ko Sénégalais yi fale mu réussir ko parce que mu ngi ci ah. dégg nga léegi Moussa nee na la jël na ren vingt milliards bi parce que xam na ne mbas mi laal laal pour ñu teel a départ suñu agriculture dañ koy régler ba pare industrie bi et cetera et cetera et cetera donc loolu bu ko ay acteurs politiques yi xamee góorgóorlu ci farlu ci yaakaar naa am nañ beneen métier bu dul nekk fii di waxantee nii kenn sant leen ko en tout jàppale président te gëm ko mm-hmm. et ci loolu nag maa ngi ci félicité ndaw yi ndaw yi mel ni moom ak ñeneen ak ñeneen ñoo ñoo yéen l'occasion aussi de remercier Abdou Karim Fofana. Hmm. man faruma kenn doomu kenn de président rek laa jëm loolu xam nañ ko si man. Hmm. mais jeunes di liggéey di góorgóorlu di rey seen bopp moom. Hmm. man gis naa ne seen taxawaay mat na te maa ngi ñaan yàlla gën koo dimbali. jërëjëf er- bàyyi dina gën a bàyyi xel ndaw yooyu noonu. parce que loolu fu Sénégal bi bu amoon président bu mel ni moom kon day dem nañ seen yoon yàgg na. Uh-huh. kon nag day defaat ci ñun sénégalais ñu xam ci nu am. Uh-huh. ñu ñuy liggéey ay jëwriñam ak directeur ñu ñu xam président lan la leen dénk. jërëjëf ku am mënul nga am ngor gu toll ni bàyyi. Mhm. ku regg tamit ba tax laa wax lu la neex nga bàyyi dem feneen. mais loolu nga bàyyi bàyyi ñu ñu liggéey ñu liggéeyal président. mais en di a a a a ko ba a mhm. Mhm. ngi wane ah. merci beaucoup alors benn question rek laata ñuy tëj COJER xam nañ ni amoon nga fa nomba tànk wala nekkoon nga fa alors tey naka nga gisee tey ki nga xam ni moo yor COJER en un mot rek naka nga gisee liggéeyam. <laughs> bon man du ma du ma bëgg di wax ci wàllum euh, ci COJER parce que nekkuma fa. dépassé nga fa léegi. voilà man euh, maa ngi ci yeneen i. yeneen i yitte mhm. donc déjà jàpp naa na ñoom dañoo war a yokk seen pas-pas. Mhm. ci liggéey bi dañoo war a gën a liggéeyaat. ñu jël ko président Macky Sall. salaamaaleykum. allo allo salaamaaleykum. allo waaw salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maaleykum salaam bonsoir. alo euh, am nga une minute lan nga ñu mën a wax ci Moussa. Bon, je j'appelais pour euh, donner un aperçu par rapport à l'émission qui se déroule euh, actuellement. Allez-y. Euh, je voulais juste commencer par remercier notre euh, mentor, monsieur Balbé. Mhm. Oui, allez-y. Et faire comprendre que hum. reste un mentor et que c'est un exemple pour la jeunesse sénégalaise, plus particulièrement la jeunesse coldoise. Hum. Mm-hmm. Et que nous lui souhaitons bon truc et mm-hmm. au maximum. Mm-hmm. Et ses interventions et l'aspect compétences ainsi que développement des cultures qu'il met en évidence. Et nous espérons vraiment que tous les jeunes prendront exemple sur lui, parce qu'il arrive à donner une autre fois. mu doon wax lu am solo yaa ngi doon wax nga ne COJER war nañ yokk nañu yokk pas-pas bi gën a a liggéeyaat parce que président euh, Macky liggéeyal la leen sant mhm. donc pour man suñu la santé liggéey na nga liggéey rek ok man yow Moussa intéressé ci mairie Kolda <laughs> non non non am na ñu may jàppale donc déjà on na un groupe politique bi nga bi nga xam ne mu ngi mu ngi Kolda donc man euh, ku président Macky Sall choisir man moom laa àndal. ok amoo benn fixation ci benn DG. wala euh, ministre bi nga war a non non man aw ma fixation. Mhm. man je suis un membre du parti. je suis de l'APR. Mhm. et euh, du Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ku Benno Bokk Yaakaar teg. man kooku laay àndal. ku ma président joxoñ man kooku laa àndal. Moussa sant nañ la gërëm la sa kàddu gu mujj gi lan la <laughs> bon maa ngi lay sant di la gërëm jërëjëf di sant également liggéey bi ngeen di def di ko rafetlu mhm. di di ne sénégalais yi mhm. dañu gën a jàpp ci président Macky Sall parce que nekk na leader un visionnaire mhm. te Afrique chef de yi dañ dañ dañoo naw xamuñu ku ñu ku ñor parce que ñun suñ tukkee jeunes yi nu ñuy nu ñuy waxee ci président Macky Sall da ngay xam ne ñii fonk nañ président te gis nañ li muy li muy def mhm. ma wax ne bi ma demee 2011 dem naa Éthiopie mhm. dama doon gis Éthiopie mhm. ci ay defar ci ay euh, wàllum koom. Mhm. loolu laa nekk di gis actuellement au Sénégal. Mhm. te war nañ gën a jàpp jàppale président Macky Sall. Mhm. Euh, gën a am cohésion au niveau national. pour ñu Sénégal dem vers l' émergence en merci beaucoup Moussa Baldé ñu sant ko gërëm ko xam-xamam màcc ci wàllum koom moom lañ fi doon dalal nekk itam cellule communication bu Benno Bokk Yaakaar nekk itam acteur développement nekk itam. responsable politique fële ca diwaanu Kolda mbokk yi sant leen gërëm leen jox leen dig daje ba beneen dimanche incha allahu rabbi